ci kàddu Déthié Fall Macky dafa am mbettaange ci limuk candidat wu yeewi askan wi bokk ci présidentielle 2024 looloo waral mu toxal élection yi amunu jotu leneen amunu jotu keneen lu dul jotu li nga xam ni moom la askan wi bëgg looloo tax askan wi jox ñu cette confiance looloo tax mu xam ni organiser nañ élection mooy Yewwi wala Yewwi jël mais loolu waru ko mën a yóbbee muy dàq ay élection ñu taxaw di seetaan. waaye wi nag jàpp nañ ne président Sall nandul bu baax li nga xam ne moom mooy message wu Wade ak juuf ñun dafa am ñaari président yoo xam ne dañ leen bëgg nekk nañ fi ba jeexal. muy président Abdou Diouf ak président Ablaye Wade président Abdou Diouf dañ ko digg dañ ko tuddee woon gardien de la constitution président Ablaye Wade ñu tuddee ko le démocrate waaw ñooñu nag man de bëggoon naa ñu wax ma door a gëm bu nu waxoon ma gëm leen waaye dama jàpp ni comme ñoom dañu nuancé te loolu lañ leen caractériser dañu wax ak président te président jotul message bi ni ma nekkee woon gardien de la constitution noonu nga nekkee gardien de la constitution garder la constitution préserver la constitution sàmmal la constitution loolu la ko Abdou Diouf wax président Abdoulaye Wade ni ko defal démocratie démocratie booy boo jeexalee dem. yi nag fii ak 2 avril dina taxaw temm. ñuy suspendre ay organe de presse c'est inadmissible dans ce Sénégal-là e loolu Yewwi Askan Wi. du ko seetaan daan ko continuer di ko wax président de la république jusqu'au avril parce que loolu la ko constitution bi jox mais bu avril weesoo. Yewwi Askan Wi di woo yi ngir ñu taxaw temm ci mobilisation bi ngir exiger li nga xam ne moom mooy maintien wu calendrier républicain.